mën a fa ngeen jëm dafa loolu nag waxi wolof la man sëñ Modou Bara Dolly Basirou Gueye wax na ko léegi sunu xarit gannaaw bi nuyoo parti allié yi fi ne yëpp nuyu mbooleem responsable yi nga xam ne ay responsable yi APR lan yàgg sonnal président Macky Sall yàgg ko tay daw ak di ko ci guddi yëpp guddi ak bëccëg waaye ba tey kenn gis yu boppam mu mel ne dafa am benn lëndëm boo xam ne tey moo am ci guddi yi ñu toll ñu nag ñëpp xam na ni guddi ak bëccëg ñu ngi daw heure bu tàngee bal yi di tàkk kan ngay gis ci dëkk bi sëñ Modou Bara Dolly ngay gis ci dëkk muy traîner taalal leen ma ay bal daaru ma naan taalal leen ma ay bal wenti wéet fu ne taal lan fa ay bal ngir man ñu gis may xuus ci seen biir ngir lan ngir taxaw président Macky sàll waaye nag nit ku ne gor nga ca gor gu ne gor nga ngor googu lan àndee depuis 2007 yàlla dogal ba nim nekkee ci biir PDS ñu ànd xeex boobu ba mu génn PDS ma am sama ndigalu waajur des PDS wàññi ko 2012 ma engagé ànd ak moom boobaak léegi maa ngi daw ñépp xam na ne kim fi tànn tey bim koy tànn mu nekk député ñëpp xam na ne jamono jooju dëkk bi tàngoon na Serigne Assane Mbacke ñoom ak ñeneen ak ñeneen di attaqué président guddi ak ba bëccëg ñu ne kenn rek ci man dara muy sëñ Modou Bara Dolly ma jëg di ko engagé lu ne ñu wax ko ko wax ko soxnaa ma jëg engagé ba loolee lépp jeex tàkk anamu booba kin fi tànn tey mi ngi cee mi ngi toog ci boppam liggéeyulut parti bi liggéeyulut président liggéeyut li nga xam ne mooy askan wi mu surtout défendre benn yoon assemblée askan wi mu wàññi ku génn biir PD biir biir APR dem ànd ak président Idrissa Seck ñu jàkkaarloo ak moom mu taxawaat ci dëkk bi di sànne ay xeer premier ministre teewut mu jàkkaarloo sëñ Modou Bara Dolly kon ki tey ñu bokk sant Mbàkke dëkk ci dëkk bii bu ma ñëkkee tànn ab liste di ko jiital ku ne sëriñ Modou am na lu ko neex sëñ Modou amul lu ko neex amut lu ma neex ñu wàññi ko mu dellusiwaat ñu tànnaat ko ca ba muy démissionné ma nga nekk Porokhane ànd ak Idriss ba léegi kenn mësut a gis fu mu démissionné ci Idriss Seck kon ni ko mën a tuddee waa réew mi la d'accord ñoo ànd fi mu toll nii waaye tey bu ñu ñaar ci réew mi tànn benn jigéen ñu nekk Touba ci APR Benno Bokk Yaakaar waa léegi kon lan lañ ko mën a tuddee non pas Benno Bokk Yaakaar mais si Benno Idi ci côté boobu mooy dëgg man dëgg du ma ko nëbbu beneen bi ci des ñi ma ci tudd ñu neew la. ñu dem ci li nga xam ne mooy conseil bi keroog bi président jaaxlee ñu naan ay góor jigéen ak lu lu ne ñu tudd ko maay yóbbu 313 sëriñ biir palais mu recevoir leen ñu njëg di xeex ba kenn waxutu loolu jàkkaarloo ak sëriñ si keroog ba ni tànn ba ni tànn dañu faa bàyyi dem tànn yeneen sëriñ lépp ñu ànd ak suñu ngor di muñ ñu demaat lu si latif yi ñëw mu woo ma ma ñëw mu ne Abdou Lahad Gaye dafa an ma lay tànn ma déparé Dakar ñëw def directement këram na ko ah, lii ñu jam de yow boo ci duggee da ngay daanu waaye waat naa ko sëñ Tuubaa man su ma ci duggoon jàkkaarloog sama rakk danaa ko daanee ndax xam naa fu may jaar mu ne ma sama kàddu raw na ma ma sutuni ko jàppale ko ànd ak moom fu mu jaaree gauche ma jaar droite ba suuru élection bi sama kër lañ ko tëjee jël sama alal def ci ñu doxaat yàlla dogal ñu perte waaye fan nga gisee nga perte yow mi say yow mi am say rakk kenn ki nga bokk ak moom ndey ak kenn ki nga bokk moom baay nga dem def ay recours pour nangu élection yi foqor ci ko ci ñoom jox ko Abdou Mbacké la Gaïndé ma man maa ko def moom defu ko ngir lan parti bi bokk yàlla dogal ñu koy jàppale ba noonu mu perte recours yooyu am ma dem def recours bi maag maître ab Abdou Mbacké naw ñu wàññi ko toog un an avant six mois ñu fal ko ministre conseiller ma toog di mu ñat ñu toog un an ñu ne ma ministre conseil ministre auprès de Aminata Mbengue Ndiaye conseil auprès de Aminata Mbengue Ndiaye keroog bi ma président di woo Aly Ngouille Ndiaye ngi toog ma ne ko soxlu ma ko mu ne ma lan ma ne ko soxlu ma ko mu ne ma noo da nga ci jàpp ne en attendant am na lu ma lay dencal ma jàpp ne boobu ay élection législative la parce que ku sa baay nekk député say rakk nekk député ngay xeexal parti guddi ak bëccëg cëg ñëpp xam ne demee boo demee élection boo demee assemblée la ñuy xaar 2024 da nga ko man waaye ay nit yu nelaw duñ fa dem ay nit yoo xam ne buñ leen falee duñ dem assemblée duñ fa dem ay nit yoo xam ne buñ leen falee duñ défendre euh, euh, département bi duñ fa dem ay nit yoo xam ne buñ leen falee duñ dépendre euh, benn Bokk Yaakaar waruñu faa dem waaye ñëpp xam na ne sëñ Modou Bara Dolly bu fa taxawoon dana défendre département bi dana défendre Benno Bokk Yaakaar dana défendre président de la république ñu tànn ñu tànn ko tey muy ñetti cër yëpp ma toog di muñ waaw ngeen jàpp na man damaa war a toog rek yam ci président Macky Sall sama xarit la d'accord sama xarit la kenn nattul bi ko waaye nit ki bu amee fu la féete am ay doomi bàyyi ñu ànd ak kenn ñeneen nga am ay nawle ci dëkk bi yow it da ko war a féete fenn ba àdduna bépp xam ko ma wax ne nag ku ne duma la topp fa ngeen jëm soriwul loo gis nag ab signal la 36 département wax waxagu ndam ak ñoom parce que ni def ci liste yi am rafetut nonguma ko nongu nong jël nañ suñu casier judiciaire jël suñu carte boo boolake ñu parce que xalaat na ne am na ci ñoo xam ne war na noo mën a dem ci yeneen liste anamu tey ngir lan ngir fexe ba ñun ñu nañ ñu xamoon nañ ñu ni tànn nañ ko tànn lu ñu koy laaje ngir di ñu yaakaar loo man nag li may wax ñu ngi jëm ci ay élection am na loo xam ne du ma ko nangu te fu ma fas yéene egg ñëpp xam na ne bu ma déparé du ma arrière billahi du ma arrière c'est que moom moom lan mën a bundu xataal ma Abdoulaye Wade di ko bu xataal ba mu jël lépp gerte ko delloo ko ko asamaan ñun ndax ay gor lan te am ci sëñ Tuubaa moo ñu gën lu man di doon nan arrêté lobby yi arrêté lobby yi lobby yi ñuy def ci dëkk bi ah di fekk ñoo xam ne ñu ko joo xam ne xam ne attanuñu ko ñu leen koy jox lu ñu perte loo département bi loolu ko teg bas wax bas li wax léegi nii buñ ko joxoon ni ko yàlloo jox ko ñu mel ne moom u Bokk Yaakaar ak yeneen ndaw yu nekk ci lépp billaay du nga dégg sëñ Modou wax parce que ne ay waree